alors l'observateur l'observateur dafa xëy ci xëtam bu njëkk ndax euh, semaine bi yëpp président Macky Sall moom la ñuy waxtaanee euh, ci réew mi ndax ñaaree ñaareelu conseil des ministres démb la woon euh, ci àllarba bi euh, l'observateur nee na Macky Sall mu ngi ci urgence urgence bi mooy adopté nañu démb loi bi nga xamante ne nii moom mooy dakkal poste premier ministre fi nga xam ne moom mooy ci biir réew mi waaye l'observateur dafa laaj ki nga xam ne moom mooy maître Djibril War nekk président nekk ancien président commission de lois mu ne garde des sceaux ministre de la justice mooy jël projet boobu ni nii moom mooy ca assemblée nationale waxtaan la séq ak maître Omar Sarr avocat à la cour mu ne bu nu dakkalee poste premier ministre bi euh, calcul politique euh, dina am fii ci biir réew mi lu doy waar doy waar lool moo am ci biir l'observateur euh, dafa rey ndaw si Euh, tëdd ak moom ba nuppi oh. euh, tëdd néew ba waaye dootu ko dolleeti l'observateur nee na dañu ko tëj giiru dundam muy perpétuité loolu lañ ko tëj l'observateur yéene kaay wax nañu ni it euh, ci ligue des champions yi nga xamante ni démb la doon am Sadio Mané mm, dugal na bit Euh, waaye euh, Liverpool mooy jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Barcelone euh, Sadio Mané nag nee na la mu doon gént yëpp tey am na mooy ci àddunaam mu jongante ak ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy waa Barcelone te loolu am na. naw match bu rëy na taal taalaat. ah quotidien Le quotidien yéene kaay dafa ne Macky sàll ak liggéeyam yu mag yi euh, ñu koy wax ci nasaraan les grands travaux de Macky mu ne euh, li nguur gi di dundee sax dinañ ko wàññi. Mhm. mooy ministre yeeg député yeeg ñi nga xamante ni ñoom la ñu fal euh, seen. train de vie daan ko xoolaat. Mhm. Le quotidien yéene kaay ne passeport diplomatique yi Macky Sall nee na dana koy soppi. Mhm. def ko neneen noo xamante ni noonu la seen tukki yeeg loolu lépp. danañu xool nan la ñu koy doxalee le quotidien yéen kaay moo ñu xamal ñu loolu la président Macky Sall wax et fii amul loolu de Khadija nañ waxante lu leer waaw enquête quotidien dafa ko tuddee mortel combat muy contrat yi nga xamante ne nii moom la ñu am ci wàllu ndox mi xam nga SDE euh, dana ko pousse waa Suez gagné marché bi am na euh, waxtaan wu yaatu wax ah dina jur problème de mu ngi noonu daal duñu coupé ndox ba rek ne buñ ko coupé ah, buñ ko coupé ñu coupé leen mm-hmm. Mm-hmm. le soleil yéen kaay le soleil dafa dikk ak ñun ci réforme yi nga xam ni njiitu réew mi président Macky Sall nar na ko def fii ci biir réew mi nee na démb nag euh, ñii di. waa conseil des ministres nangul nañ ko ko ci ni mu gën a gaawee nag daanu yóbbu mbir mi ci assemblée nationale fii ak ajjuma incha allah rabbi yóbbu ko nag procédure d'urgence mu am loo xamante ni nag dana ko xoolaat ci biir réew mi le soleil yéen kaay moo ñu ko xamal jongante diggante Sadio Mané ak Lionel Messi demi-finale lay doon Ligue des champions le 30 avril le soleil yéen kaay moo ñu ko xamal. Lamine euh, xam nga man lan laa bëggoon xam. suñu supprimer poste premier ministre. configuration gouvernement bi. naka nar a demee gannaaw bukki mbaar. lépp day centralisé wu ci euh, président. doy na waar mais j' espère que dinañu defal organigramme bu précis. li ñuy mooy bukki mooy buur mooy dawal saret mooy seere présidentielle bu doy waar la nar a am. daar bu doy waar. cay Macky. Mhm. libération. libération dafa dikk ak ñun ci euh, ay société transit yoo xamante ne nii ñu ngi nekk fii ci biir réew mi fraude fiscale lañ leen. tuumaal ak wàllu douane lépp nag ci skandaal boobu libération dikk na ci ak ñun euh, mu ne dikk am na ñoo xamante ni teg na leen loxo am na ñoo xamante ni ñii ñi ngi leen di xool te bu ñu leen xoolee ba jàpp leen ca ndungu siin la ñu jëm libération yéen kaay moo ñu ko xamal. le populaire le populaire le Vox Populi Vox Populi dafa dikk ak ñun ci secrétaire général bu FGTS di Sidia Ndiaye Sidia Ndiaye amul lu mu yàkkul euh, juróomi central syndical yi euh, loolu la leen loolu la Vox Populi xëy fësal ci xëta mu njëkk Macky sàll mi nga xamante ni jóg na taxaw temm ngir li nguur gi di dundee ñu wàññi ko ba mu mat sëkk euh, xam ni ñoom ak réew mi ñoom ñoo yem te réew mi dañ ko fal ngir mu jooyante ko Vox Populi moo ci dikk ak ñun. waaw Lamine man dafa am benn affaire bu xaw a bu may xaw a gêner tuuti. muy xam nga def defaguñu na fi sept ans bon ça veut dire que train de vie boobu mu amoon bon pour moom dafa normal woon wala ah, daal doy na waar. doy na waar ah léegi deuxième mandat bi daal naka la. waaw nan lañ wàññi. <laughs> day na waar stade <laughs> stade ci wàllu tàggat yaram stade quotidien dafa fesal ci xëta bu njëkk Mohamed Salah euh, di nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy Sadio Mané muy wane ni Liverpool moo daan euh, démb Porto ñeenti bal ci benn waaye demi-finale yi euh, jàpp leen ni Liverpool dina jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Barcelone Sadio maane laaj nañu ko ci biir stade yéenekaay mu ne dinañu def lépp ngir daan ñi nga xam ne ñoom ñooy Barcelone Kalidou Koulibaly ci mission commando la def nekk ci Europa League bi Naples mooy jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy Arsenal loolu la ñu loolu la ñu laas euh, stade yéen kay xel fësal ci xëtamu njëkk mu ne Lionel Messi dugal na ñetti bit ndax moom du jëlaat li nga xamante ni nii moom mooy soulier d'or bi loolu la ñu stade yéene kaay xëy fësal ci xëtam mu njëkk. football des leaders yaa ngi yeneen leaders a ngi feeñ de. doy na waar Sadio Mané moom il a le vent en poupe. waaw macha allah yàlla na sax. biddéewam daa fànq. yii te xool bu mu bu mu mës a voilà. du daan mukk. ca kaw rek. record. ñoo ko doon laaj démb ah, indil ah, nañ ñu ko tey na leer nañ ndax mooy journal bi nga xamante ne nii lépp lu mu la wax ci wàllu tàggat yaram dëgg gu wér péng la Ligue des champions yi la ñu xamal mu ne Tottenham mooy jàkkaarloo ak Ajax d'Amsterdam Barcelone di jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy Liverpool euh, kii di Kalilou Koulibaly it nataalam mu ngi ne fang ci xët mu njëkku record record yemuñu ca am na yu bari yoo xamante ni nii mu ngi ci biir journal bi defal na hommage ki nga xam ne moom mooy Momar Seyni Ndiaye euh, boo ubbee journal Record daal lépp ma nga ca biir. Mhm. amul dara dara dara dara loo xamante ne ni Record yéenekaay bàyyi na ko. Xaadim euh, Ndiaye mi gaañu euh, damm. ci mhm. tamuy faju nii Maroc daal tamuy faju moom waxtaan na ak moom Record gis nga li ma lay wax ci Record. Mhm. non lañ dem nañ fekk waaw. Hmm? macha hmm? allah ki ñuy wax Bakary Cissé moo dem seeti ko. Xaadim nee na dina footballaat. Euh, du yàgg dara fii ak 6 mois dina footballaat. Mhm. nee na mi ngi profité ci journal bi pour gërëm monde sportif yëpp rawatina waa Sénégal. Mhm. mu ne dirigeant africain yi li ñu war a def mooy ñu sukkandiku ci seen président club boobu mhm. ndax lam ko defar nee na euh, fracture bi fracture ouverte la. waaye dëgg-dëgg fii ak ay weer dana wér. loolu la xaalim Ndiaye wax ci journal bi nga xamante ni moom la ñuy wax record. yemook li ndar képp yéene kaay yi. Mm-hmm. xam naa ni incha allahu rabbi. daañu fi dikkaat ci fan yi. mbaa suba ñoo faram-fàcce ko yaatal ko. incha allah ba mu ne ko kororoj mais Lamine dafa am tamit xam nga ñun suñu suñu Sénégal dañuy dañuy defar. Mm-hmm. dafa amoon incompréhension bu amoon xam nga Khadim Ndiaye dafa dafa dafa dafa dafa gaañu woon. gaañu wu mm-hmm. doy waar. Mm-hmm. waa fédération marocaine de football jël ko en charge yóbbu ko. ñoom ñëpp ka ñi leen ŋànk mooy CAF. confédération africaine de football. ça dire que xam nga dimbalante entre fédération yi. xamuñu Augustin Ndiaye peut-être lan la wax ak jël ko en charge. charge. Mm. dañu rafetal rek. Mm. réeroo moo amoon si mm. diggante famille. xaaral jaay waaw li papa ji doon wax ak yooyu. voilà woon rafetal rek réeroo la woon mais. fédération sénégalaise de football. ku xam Auguste maître Augustin Ndiaye ah, xam na ni que vraiment ku am yitte la. je crois que domaine boobu léegi passé nañ ko comme xaadim mu ngi remercier di gërëm di sant li ñuy def mooy tamit ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàmm amiin acca auditeur VIP cent mille francs ñaar fi ko yënnee léegi léegi xobbet xobbet <laughs> bu pël laalagul